bokkal ami sañ-sañ ci diine te yënguwul moo kooku may Ababakar yor cër ak dogal ami sañ-sañ ci diine te yënguwul moo kooku may Ababakar mbir mi kenn tëggalewul ki mu doon moo kooku may Ababakar mbir mi kenn tëggalewul ki mu doon moo dëkkaalewul ki mu doon moom kooku mooy Ababacar xalifa man bay na samaawaat ki mu doon moom kooku mooy Ababacar xalifa man bay na al arde ki mu doon moom kooku mooy Ababacar dongu Maodo doon di Cheikh bakkaar daal dulli wàcce wu ko de déedéet jàngal xoolal wàcce wu ko de dem ci yoon bi wàcce wu ko de xam lu koy wàcc xëy na tës ubbi sa xol yéena lu baax liggéey yor say njaboot jàppale koo jàpp mooy wàcc sa bàkka te gis nga boo demee màkk tey tey tey tey nii màkkatul mu karama tey nga dem fa da ngay xool foofa nit ñi ni ñu taxawoo ci Arafat da ngay gis ay milliards milliards ci ay lekk ñu ko jox te doo xam ñi ko joxe kon berndeel ay nit li ci nekk dafa am solo li jumaa di foor foor li jàkk foor foor li def lépp mais jox nit moo gën a foor jumaa gën a foor jàkk ñu lekk kon bu ñu amee lu ñu mën a am jox nit ñi lekk ko ñun duñ ci seen bopp dañuy xool nit ñi ñëw di la ko lekkal foofu te nit ki bu lekkee ci loo ko jox mu jàpp ci rukkoo ci yàlla mën na la jëgal jëgal ko. ana soppey alxaji Habib si. bu nu sàggan ci Babacar. Cheikh Tidiane. média réew mi déglu leen di ko seetaan Sophie lépp fi lay leeree liggéey rek a wóor fii donc fii rek fii kese ci El Vision fii lay tànge fii lay xoyom xoyomee du feneen maa ko wax nit ku baax xam nga lu mu war ñax ak salaat du ñu benn ku weddi bi nee garab. di def lu bari di wax lu néew réew looloo koy doxal. réew wax ju bari du ko doxal mais jëf moo koy doxal. soo bëggee lu leer na ko jàpp. lépp fii lay leeree. xam naa ni ñii doomi réew mi lañ. ñun ñëpp ñu ànd doo dem ca kaw. laay lele laaw lu ne fa nga kenn du ko jeex yéen laay béggee. nit ku baax daa waram gis-gis ba mel ni ñoom. yéen amuleen moroomee. leen ñaanal gudd fan ak wér. te xam nga àdduna booy bëreek moom. da nga jël yàlla def ko sa entraîneur nga jël muñ def ko sa entraînement. yàlla comme coach ku lay gañe suufa ñu dàq muñ foofu tuuma ñu mujjee toog maa mënta ñàkk waaye wala dugg bett.